Monsieur le ministre, nous vous renouvelons nos félicitations. Nous vous renouvelons également nos engagements, nos, nos encouragements à inondation monsieur le ministre dama dama dama département ak ce ministère de ko bu vision président Macky Sall enseignement supérieur formation professionnelle éducation de ko bu document est bien. soo wax waxum jàngale bugg ci génne informatique bugg ci génne nouvelle technologie bu boobaa vraiment defe naa da nga tardé te bul xëcc Sénégal mu dem ci ginnaaw même docteur yi ci médecine léegi dañuy liggéey sax toll ci dëkk ñu leen toggul ci beneen dëkk ñu liggéey ci internet donc bu ñu demee tey ba am foo xam ne képp kuy dox da nga war a méngoo ak loolu ci enseignement bi tey ñu jël li nga xam ne moom mooy ay éno mun a permettre xale yi di dugg ci ay salles yoo xam ne dañ koy équipé en informatique am ay professeurs yu nekk fi ak yu nekk feneen ñu leen di jàngal mais loolu dañ ko war a rafetlu donc defe naa ne il faut que ñu gën a gëstu aussi lan mooy vision ak lan mooy programme ba nga mun ci apporter ay critiques yu fondé beneen bi dañu wax fii ci biir léegi ne suñu règlement intérieur dafay wax ne le ministre des des finances dafa war a toog amul fenn fu ko wax le ministre des finances ba ñu commencé voté budget ba léegi fii la koy fekk mu voter budget bi indi ci ay mu parti mu fekkee vote bi indi ci ay réponse ci question yi ko posé amul fii benn question boo xam ne muy finance muy plénière posé nañ ko te ministre des finances bi ñu indi vote bi indiwu ci tontu mais loolu lañ ci xaar mais ñu indi règlement intérieur boo xam ne yow déjà pour nga lire ko problème la bëgg a wax lu ci nekkul ça c'est un faux débat beneen bi foofu lay terminer monsieur ministre je pense que da nga yor lu am solo man en tout cas personnellement dama lay gërëm di la sant parce que bi nga nekkee euh, directeur dañ doon waxtaan nga doon liggéey

bu njëkk dañ ko amoon nit ñi di ko def de la façon la plus professionnelle mais léegi loolu dafa disparaître parce que dañu dem ba jël habitude yaakaar ne lépp lu ñuy def waruñ ko jàng dañ ko war a jàng dans le temps muy maçon bi muy ouvrier bi muy cordonnier bi muy lépp dafa am noo xam ne dañ ko ko jànge te ni ñu koy jànge di ko transmettre day dem ba finalement métier bi dootul am euh, kenn dootu ko mën a exécuter parce que lañ ko war a jànge jàngewuñ ko mais bu fekkee ne da ngeen bëgg a indiwaat ñi nga xam ne tey ci benn niveau la ñuy yem ñu mën a dem jàngi métier yooyu loolu lu rafet la ñu ngi leen di